asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi topp le arènes ñu ngi leen di bëgg bu a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm waaye di ko sàkku ci yéen tey nag dañoo seet si kenn koo xam ne tamit comme ni ma leen koy waxee rek dañuy dem tout le temps rek di leen bëgg indil ay xibaar yu leer ci làmb moo tax ñu seet koo xam ne moom mooy Manga 2 le roi des arènes li tax ñu seet ko nag bokk na ci drapeau chef de war am ca seen louis parce que ku ne xam na ne moom tey ci au niveau du CNC moom mooy ki ñuy jox wàllu làmbi simple moo koy présider mooy njiit la gérer ko kon defe naa chef de l'État bi nag bientôt incha allah rek bu ñu jógee ci koor gi ba après korité lay am fa nga xam ne moom moo di ca Saint bi ci mois de mai bi moo tax tey ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ba xam ñoom fu ñu toll ci préparation yi ak mbir mi ni muy demee euh, Père Manga maa lay nuyu di la ziar. merci Babacar maa ngi leen di nuyu. di leen dalal ak jàmm. ak mbégte lool seet bi ngeen ma seet si. mu tase tey ak suma ah, anniversaire. waaw waaw donc maa ngi leen di sant bu baax a baax. di leen ñaanal aussi li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla defal leen ko te mu nekk lu gën ci yéen ndax euh, arène bi suñu arène la les arènes suñu les arènes la ndax gis nañu jéego yu muy def ci làmb la preuve étant donné tur bi rek doy na waaw waaw yéen ñëpp ñu fa liggéey ñoo xam ne ay amateur lañu ñu nekkul ay amateur ñu nekk ay ñoo xam ne ay am si jàmm lañu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaw. am na solo per kon joyeux anniversaire happy birthday to you lañ lay wax dundal lu bari yàlla guddal fan ni gën a wéral cër yi bàyyi la ak njaboot gi loolu lañ lay ñaanal du mën a ñàkk faw ñu ñaanal la. <laughs> amiin amiin puis sant njaboot bi aussi parce que njaboot bi ñoo def anniversaire bi. noo wax ne papa ma ne ko non jaratu ko mu ne ma non il faut ñu def anniversaire bu rëy jënd yëpp jënd michu yi defar michu yi def gâteau yi. donc maa ngi leen di ñaanal yàlla même ñu nekkul fii nekk bitim réew yëpp. Mm-hmm. nekk en correspondance ak ñu nekk fii dakaar xale yi. Mm-hmm. rawatina nag seen yaay. Mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen bu baax a baax waaw. mais comme ni mu ko waxee bi may ubbi lutte avec euh, wala lutte simple yow lañ ko dénk yaa koy jiite yaay président bi foofu yaa ngi dégg mu mel ni nag buñ ko waxee actuellement li xel yi dem moom mooy chef de l' bi yéen a ngi ci préparation bi yaakaar naa ne actuellement nii ren bi moom moo aye ba maanaam fu ngeen toll ci wàllum préparation bi actuellement. Euh, toujours du sant yàlla bu baax a baax niñ ko defe woon rek Kaolack defe ko Diourbel loolu lay fas yéene defee ko Saint-Louis di ànd ak équipe CNG bi yëpp ku nekk day foog ne bés bi bésam la donc loolu lu jafe la ma di leen remercier ci ngërëm bi ma teg ci le président Bira ci loxam ndax su may jóg ñëppay jóg suñu dem ñëpp a bugg dem mhm. ba barke démb rek la ñu jógee Saint-Louis mhm. dem xooli stade bi mhm. xooli le président du CRG jaarale foofu gis le gouverneur gis le préfet waxtaan ak ñoom ba xel dal kon nag CNG ma nga moo nekk président chargé de la lutte simple mais ñëpp ku nekk président la ndax ku nekk xam-xamam daf ko indi ñam te de ko indi ci làmb ji kon maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen wax ne nag ñun pare nañu pour dem Saint-Louis région yi aussi ñu ngi pare pour ñëw Saint-Louis ñu war a woy làmba ji woo nañ leen pour ñu préparer wu aussi ñu war a tëgg làmba ji woo nañ leen pour ñu préparer wu pour dem Saint-Louis ak ñun Euh, maanaam euh, fi may desaat balaa may dugg ci wàllu woykat yi tëggkat yi fi may des mooy ci côté euh, préparation bi dem ngeen Saint-Louis gis ngeen autorité yi fa nekk ak yu mel ni ki noonu ba gérer ngeen raison yi war a ñëw est-ce que raison Sénégal yëpp ñoom ñoom ñoom ñoo pare pour participer am na ay raison yoo xam ne ni maanaam ñoom duñ ci bokk. non ñun toujours dañu ñaan yàlla régions yëpp quatorze régions yi yëpp ñoom ñu ñëw mais contre temps mun na am waaw su nekkee ne benn région moo manqué ou bien ñaari région moo am ñoo xam ne gàllankoor moo am. mais ñun le CNG ñëpp la ñu prévoir pour mu ñëw. de quatorze quatorze yi. kon nag ñu ngi leen di xaar tereen aussi am na innovation bu ñuy def. am na ay xale yu tuuti yoo xam ne ñoo ñëw bëri ji foofu mu nekk ay jigéen nekk ay góor voilà petite catégorie la la ñuy wax la petite catégorie donc ça sera une première ah ci drapeau chef de l'État donc innovation yi daal dina bari. surprise yi dina bari ci côté dallukaay yi parce que boo nee ay raison yëpp quatorze raison yi war a ñëw raison de Saint-Louis muy benn raison war a ëmb quatorze treize yi des maanaam dallukaay yi ak yooyu équipe yi seen ay dalluwaay ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les membres du CNC ak sax presse bi tamit est-ce que yooyu yëpp liggéey ngeen ci ba pare waaw loolu moo waraloon ma déplacé wu ànd ak avec le président Bira ñoom may sa ñëpp délégation CNG ñu dem seeti avec le directeur administratif Ndiame Diop ñun ñëpp ñu dem seeti logement yi yaakaar naa ne suñu xel dal na ci lu ñu gis lu ñu gis suñu xel dal na ba yaakaar naa ne ñi ñu war a héberger yëpp dina ne héberger yaa ngi wax la presse donc xam nga toujours dañu def lu rëy ak yéen ci presse bi defal leen mais léeg-léeg ngeen sànni ay xeer <laughs> mais ñu ngi waaj comme ni ñu ko doon defee rek di sant ci yàlla bu baax a baax donc yaakaar naa ne képp ku ñëw rek koo ko ci askanu làmb rek bëgg nañ la satisfaire waaw. Euh, euh, léegi naa dugg ci côté organisation bi rawatina ci côté euh, maanaam ambiance beeg yooyu way parce que daaw dañu gisoon que ni ci région de Diourbel ñu boole woon Mbayang ak ki nga xam ne moom mooy Ndeye Fatou mais dafa mel ni xawoon na jur benn genre kii tuuti loolu ren nu ngeen ci dikkee waykat yi ren ku ngeen woo wala ñan ngeen woo. oui ni ñu ko comme ni ma la ko waxee rek préparation bi ñu ngi ci bu baax a baax. ren dañu fas yéene yóbbu Faya Mbodj waaw parce que dañu wax ne ñëpp lañ fi nekkal dañu bugg ak Agnès bu may ndeb moom la ñu fas yóbbu ren rawatina nag kuy tëgg mooy momo ndax waaw ñu ànd ak ñoom mhm. donc dañu wax ne fête la feetu làmb la mhm. donc ku nekk dafa war ci gis boppam mhm. donc ni suñu demee ren beneen année ñeneen demaat au fur et à mesure noonu la ñu bëgg di def waaw parce que tëgg gi tëggkat yi bari nañu woykat yi bari nañu mais ku nekk ñu jox ko wàllam rek. jox ko waaw. mais est-ce que mënu ngeen di jël par benn woykat wala. waaw xam nga dañu commencé woon pour jël ñaar day métti trop ci ñun loolu moo ñu gën a arrangé. par benn par benn moo ñu gën a arrangé parce que waaw moo. waaw moins cher. Mhm. mais comme dañ ko tàmm di ko def. xam nga trois jours di woy dafa métti. dafa metti donc il faut nga jël ñaar. yoo xam ne ñaari troupe kii su woyee ba sonn kale jël kale su woyee ba sonn kale jël mhm. je pense et attention y en aura une surprise parce que waa seen seeni wax nañu ne am nañu seen woykat am nañu seen tëggkat yaakaar naa ne animation bi lu ma leen di ñaan rek na nekk cosaan mhm. ñoon cosaanu seen louis bëgg nañ ko gis mhm. Marou le président du CRG de Saint-Louis yaakaar nañu ne di nga indi loo xam ne kenn mosu ko gis donc Saint-Louis si ko waxee dëkk cosaan la su ko suñ ko waxee dëkk culture la donc askanu làmb bëgg nañu gis culture yooyu ñu def ko foofu waa mais waykat yi nu ngeen leen di tànne moom. non waykat bi ni ñu leen di tànnee en tant que président damay def proposition parce que damay liggéey ak comité bi su ma defee proposition ba pare yóbbu ko CNG ñu toog càmbar ko ma joxe argument lii moo tax lii moo tax lii moo tax ñu choisir kii waaw. ñu ci waaw suñu d'accord la même chose tëggkat yi aussi ñu waxtaanee ko. Mhm. waaw suñ ko waxtaanee ba jubóo après ñu defar ko. Mhm. ci côté euh, maanaam financièrement budget bi actuellement bu ñu ko xaymoon ñaata la war a toll budget drapeau bi. budget bi dañu xaaragum ba lu ñuy yaakaar mu dugg si su dugg see ñu wax la ne budget bi la atteindre nañ ko. donc y' pas de problème parce que ñu ngi ti des na tuuti quand même. budget bi kan moo koy génne ministère des finances wala. kan ministre wala. sénégalais yëpp a koy génne le président de la république day génne am na ay ministres am ay am si jaamam ak directeurs yi yëpp ku nekk ku mën a def dërëmam rek def ko parce que fête nationale la c' le drapeau du chef de l' état ñëpp a ko moom. dañu dem pour banaw mun nañu wax ne feetu làmb la ñëpp war nañ ci teew ñëpp war nañu gis seen bopp. maanaam kon bu ñëpp bu ñoo ñëpp génne ba xaalis bi daje kon ci ngeen di doog a mën ne bi tant de millions la wala tant de junni la. non budget bi def nañ ko pare mais ñoo xam ne ñoom la ñu ko sekkal ñoom nañ ko war a jox en attendant ñu xam ko pour xool lan lañ ñu mën a jàppale ci loolu. budget bi pare na bu yàgg. comme ni ñu koy faree di ko def. mais doo ñu wax maanaam doo ñu wax ñaata la. non xam nga budget bi mën a guloo wax ñaata la parce que xamaguloo ñaata ngay am xamaguloo ñaata nga koy ficelé dañu de def proposition sur le budget def suñu budget comme ni ñu ko doon def ci at yi passé rek. yéen ñaata ngeen proposé yéen. non lu ñu proposé ñooñu autorité lañ koy jox document lañ koy jox xam nga ku war a organiser làmb fi ñu ko war a organiser il faut nga am ay charte yoo ko teg ak loo koy wax cahier de lu ñuy wax cahier de charge nga jox ko cahier de bi après déjà lundi bi dañu war a dem mhm. Saint-Louis mhm. pour waxtaan avec le ministre si le temps le permet et waxtaan ak gouverneur bi dison def réunion ku ñuy wax CRD ak ñoom encore. Mhm. lundi. su euh, fekkee ne ñu ngi ci jàmm. bu bu ñu ne euh, drapeau chef de l'État maanaam lamb la pour réew mi yëpp bu keroogee maanaam lamb dootul am fen ci Sénégal Saint-Louis rek la lamb di amee est-ce que maanaam ñi nekk ci lamb ñëpp moo xam promoteur de lutte la moo xam mbër yi la moo xam amateur yi la est-ce que ñooñu ñëpp moo xam presse bi ci liggéey la est-ce que ñooñu ñëpp yéen a ngi ak ñoom maanaam di waxtaan ak ñoom ci mbir mi boobu mbir maanaam bu bis ba jotee ñu ñoom itam bu ñëwee mën ci gis seen bopp. non dinañ commencé suñu publicité xam nga dafa am ku yor loolu ku nekk ak chartam la ku yore marketing bi ku yore yëfi publicité bi ku porte bi donc yooyu yëpp dinañ ci dugg te dañooy commencé def ay banderole war nañ commencé teg ay banderole seen yi di def communication donc ku yor communication bi chargé de la communication mu ngi ci mësutaate liggéeyam ku xarañ ci liggéey boobu la kon nañ ko bàyyi ak liggéeyam bi mu def ko euh, dinaa la ko laaj parce que gis nañ ne at yëpp ay DTN yi dañuy yëkkati kii indi kii indi ki yëkkati ki Oumar Sène ñu ne déet na ñu jëlee ko fa indi Tafa Gueye Tafa Gueye ñu jëlewaat ko fa indi Boy Kayre Tafa ne bi ñu ko fay jëlee moom yëguñu ko yëgu ko sax fa jékki rek gis ne jël jëlee nañ ko fa mu nekk loo xam ne moom tamit de nee na loolu mënoon naa ñàkk. noo xam nga ñun comme ni ma la ko waxee rek suñu liggéey am loo xam ne dañ ñu ko denk moomuñ ko donc dañu war a def. équilibre ba ñëpp mos. xam nga dafa am ku fi nekkoon premier année bi ñu indi ko. kooku année boobu pare ñu jëlaat keneen. boobu parewaat ñu jëlaat keneen. donc Tafa Gueye dàkkuñ ko parce que déjà muy ànd ak koo xam ne moom lañu choisir pour mu dem ren. Kayre waaw donc du question dàkk soo waxee dàkk day ñaaw parce que bokk nañ ci commission bi su amee. loo xam ne amoon xalaat bu mu war a indi affaire bi ñun ñëpp a ko bokk du question benn nit donc ay ñeneen ñoo fi nekkoon moom dañu demaat ñeneen ñëwaat donc suñ ko rafetalee rek dina rafet. waaw. parce que keroog Amadou Katy Diop jël naa ko laaj ko ci moom mu ne bu sañoon sax moom ñu jël Tafa gi def ko directeur technique Kairé nekk entraîneur bi te moom mu nekk seen ginnaaw rek conseil leen parce que Tafa Gueye nekk na quelqu'un boo xam ne ni ni mu jàppalee daaw ba ñu jël moom xam na ko moom mi fa nekkoon. bëgg-bëggam la wax xalaatam la wax on a besoin ñu jox ñu ay xalaat mais la décision finale revient au CNG loo xam ne ni ñu war a doxalee waaw ku nekk am na droit indi xalaatam waaw ay nit nekkoon ñoom Juga Jaar nekkoon nañu fi ñoom Omez nekkoon nañu fi ñoom yëpp donc ñoom Ibrahima Baye nekkoon nañu fi donc noonu noonu la ñu fonctionné waaw. Euh, am na solo mais Ambroise Sarr l'entraîneur national démissionné na pour équipe nationale ndax défaite bi mu jëlee fële nga xam ne moom mooy Niger parce que noonu lañ ko mën a waxee parce que dafa dem ñu gagné fa Sénégal gagné boo xam ne nii c'est la première fois muy am si li ma fàttaliku man. waaw xam nga kenn du xiccu ak yàlla suñu demee Niger dañuy bëggoon am ndam ndax xale yi jógoon ñëpp ku nekk jógul pour ñu gagné ko dañu jëg pour jëli ndam yàlla su waxee ne nii lay dogalee nag kenn mënu xëccoo ak moom yàgg nañu di jël ay ndam ndam yu gën a métti gën a neex ndam yi donc je pense que tey suñu ñàkkee dañu war a sant yàlla comme dem nañu ak jàmm te lu ak jàmm ñu sant yàlla bu baax donc comme ni nga ko waxee ne Ambroise xaw ma daf la wax ne dafa démissionné ou bien ne fu ko ou bien daf ko wax ci journaux siiw na eh, waaw waaw d' accord les arènes bind na ko bon eh, waaw moo buggee doxalee noonu mais xam nga CNG su demee ci mission su ñëwee day toog def autocritique lan moo dox lan moo doxul tout et consort càmbat def lu mu war a def jël mesure lu mu war a doon jël je pense que Ambroise lu mu def ci làmb de passage c'est mon grand frère maa koy félicité mais su laajoon ay conseil du ma demee noonu parce que mun na sortir la tête haute te dañ ko war a defal teraanga mënoon na toog yàgg nañ du ko defal teraanga di accepter ne mag na te ñu liggéey ak moom parce que ndax lu muy def donc munoon na toog ak CNG ne ko ah lii moo nekkoon suma xalaat ku nekk wax xalaatam ci xalaat boobu après ñu nañu trouver terrain d'entente man suma gis-gis laa wax waaw ma gis-gis laa wax donc wax na lu mu wax CNG am na accepté na démission fekk am na décision bu mu jëloon parce que quand même euh, quoi qu'on dise le CNG accepte na comme par exemple y a eu des failles su amee ay fay nag c'est le CNG moo gàddu far yooyu mais y a eu des failles. failles ma maanaam am na ay fay moo leen ñàkkaloo kon chef de l'état bi astafurlah fi ñu doon ci Niger. Hmm. waaw am na fay ci équipe bi am na fay ci choix bi donc euh, loolu rek mais dañu peut-être yàlla moo ñu ku ñàkkaloo jaarale ko noonu. Hmm. loolu rek la. maanaam soit soit ci ñi mu doon yóbbu wala ñi mu yóbbu ci mbër yi kon bu ne équipe parce que mbër yi la parce que boo xoolee soit boobu kon moom ngay wax ne moom moo nekkul soit bu bi gën. waaw choix boobu xam nga di nga def choix te choix boobu am ñoo xam ne fi ngay dem am na ñeneen ñu nekk fii moo dàq bëre yooyu donc mais ku nekk dafa am cër bu lay jox respecté la ci li ngay def mais am na avant ñu dem am na ay proposition ay xalaat yoo xam ne am na ñu ko génnewoon est-ce que nii mënuñu def nii ñu def nii mais toujours euh, le directeur technique dañ koy respecter ak avec l'entraîneur de son choix mais tu vois loolu donc a di xëccoo ak mais am na loo xam ne dañ ko avertir ne lii diw mënoon na dem diw mënoon na toog tu es consort mais le choix ça le revient. non du question waxoon nañ ko dama lay wax ne. nit su liggéey dañ ko jox cëram bu mu mot sikk mhm. ñu ko joxee piram bu mu mot si moo xam lu ko doy moo xam lu tax mu di gis choisir loolu mais ñun en tant que par exemple man président bërikat bëri ci traditionnel am na foo xam ne am na fay ci choix bi waaw y a le directeur technique qui était avec lui aussi mm. donc mais dañ leen di respecter ci choix bi mm-hmm. donc mais dara su amee nakar su amee ñu ñëpp ñu endossé le CNG mu endossé loolu kon ni mu demee daal yow gënalu la quoi non nu mu dem ni mu démissionné non nu mu démissionné gënalu ma nu mu koy defee mais taxul mu metti ma parce que loo gis rek dañ koy rafetal loo gis dañ koy rafetal comme ni ñu ko doon rafetalee daawaatu jeeg c'était des moment boo xam ne comme par exemple on pourrait tirer entrée te defuñ ko di rafetal bi egsi fii donc donc mënoon na génne lu gën a fair play <laughs> am na solo léegi ma ma ma ma ñëw ak ñëw ci leneen mais euh, euh, mais mais balaa may dem foofu sax datu kii bi chef de l'état bi date bi. date bi date bi c'est le 5 mhm. vendredi. 5 samedi mhm. dimanche mai. mais délégation yi dañu dem le 4. le 4 la ñuy dem waaw pour préparer pesées yi yëpp. Mhm. le nécessaire waaw. kon daal mën nañu ne le 4 5 6 ba le 7. ba le 7 le 7 mooy bésu final. waaw fête mooy fêtu làmb. waaw loolu. le drapeau de son excellence le Macky Sall am na ko joxante kon le le ni ñu ko waxeeti le ba le 7 incha allah rabbi waaw su neexee yàlla incha allah di ñaanal ñëpp am jàmm ñëpp ab wër gi yaram ba mun a fekkee événement boobu. presse bi mbaa sóoraale ngeen leen. waaw loo bëggoon ñu sóoraale daf ma ay proposition ma dégg. dalukaay maanaam suñu daluwaay. ak suñu suñu suñu suñu suñu dund. parce que comme ñun bu ñooy ñëw di relay xibaar yi ñu di ko jot à l'heure actuelle heure bi ñu ko soxlaa rawatina presse en ligne bi tamit il il fallait que nag président tamit ngeen sóoraale ñu man foofu laa waxee. ce que dafa am benn drapeau chef de l'État bu ñu leen ah gisaguloo ko donc je ne pense pas que nga war a laaj loolu te xam na loo xam ne am ngeen ko. daaw amoon nañ fa ay difficultés à à Diourbel am seetuñ ko dañu def lu ngeen lu ñu war a def ci suñu diggante. waaw xam nga amoon nañ fay jafe-jafe Diourbel ban Diourbel euh, ban daaw ngeen amoon ban problème ngeen amoon Kaolack amoon ngeen fa problème non non dama la du question sori xam nga déjà CNG su leen jàppale aussi il faut reconnaître ne CNG def euh, daf leen di jàppale yéen organe ngeen si ngeen di dem dañ leen di jox ay seen frais de mission teg leen dans de bonnes condition parce que xam naa fi nga nekk mais ñun seetuñu loolu lu war ak ñun dañ koy def bu ñu dem Kaolack ma ànd ak yéen seen dal ànd ak yéen defal leen leen defal jox leen prime ba ngeen kontaanee li mos leen ko am donc su fekkee ne da ngeen dem Diourbel ay logement manqué fu sori moo mun a am ñu ñëpp ñu fekk euh, kii yooyu yoon da ngeen war a sant bor leen gis boobu rek waaw lu tax nga gis boobu bu njëkk bi neex na ci yow ba nga yéen ko wax ba pare ñu defal leen loo xam ne kenn mosu leen ko defal yéen a ko waxaa seen bopp ñun waxuñ ko donc <laughs> <laughs> man Kaolack ba ñëwuma woon malheureusement looloo xam naa ko fekkewuma lool. waaw donc laaj Jurbel bi laa fekke laaj ko laaj laaj ñu ñëw laaj ko Abu Ndoura ah. ah, Abu ñëwoon na xam na ci dara xam na waaw ñëw na xam na ci dara <laughs> donc suñu def ay effort aussi da ngeen ñu war a ànd ci effort bi du ñu encourager parce que nit bi yëg leen xam ne nii ñooy développer làmb ci ay wax ci ay bind je pense que su demee te ngeen nekk ci ay organes de presse di jaay seen journaux yi di jaay seen comme ni nga ko waxee euh, en ligne video yi tu et consort te kenn laaju leen ci dara donc da nga leen di war a remercier quand même rawatina nag di leen jox ay prime ñun le CNG waaw di leen jox logement di leen loger kon yaakaar naa ne tey yéen ngeen jël seen prime yooyu dugal ko seen poste ba pare ñu yëg ba seetu ñu loolu di leen jox loolu. mais bi yokku na ren ah. pour pour mbër yi pour équipe yi. non mise mise bi yokku na parce que déjà am na ay nouveautés yu ñuy def. Hmm. nouveauté yooyu yëpp xaalis la. Hmm. donc loolu moo tax wax la ne. équipe bu euh, am na de toute façon équipe bi yokk nañ ko parce que wax naa ne y a la petite catégorie qui sera présente wax naa la ko sànq. donc yooyu yëpp c'est des frais. Hmm. te ñun la leen jël en charge. waaw jox leen logement jox leen ba cinq jours yi ni nga ko waxee jeex. waaw waaw di leen transporter. am na solo kontaan ci président. waaw di remercier tous les présidents de CRG. di wax leen ne ñu ngi leen di xaar ak seen équipe yi. ngeen teel a ñëw indi xale yi ñu def fête bi ñëpp xam ne jour boobu feetu làmb la ku nekk a gis ci boppam nu làmb nag ñu ngi leen di xaar les amateurs ñu ngi leen di xaar comme ni nga ko doon defee demb ak barke démb rek Saint-Louis la ñu dem donc ñu ngi woo ñëpp.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 daan na ko la ilaha illallah